waaw kon ñu tënk foofu far li ma doon wax léegi ci Mouhamadou Yadani moom yi euh, bëxër boobu mu wooyee mu waaxibu bi nga xam ne noonu la wooyee wa soq itam moo xam ne askan bi Mouhamadou Yadani way na lu mel noonu waaye moom it la ko jëta maanaam dafa bëgg moom bu nee wa soq bi rabil arsi sil jëri wala fi maal Mustafa wallaahu lii maxul saf bi xam nga wasatu waaw la tàmbalee léegi fukki wëy ak ñaar yooyee ma arab yëpp fukki fukki fukki bunt ak ñaar la ko def moom moom Mouhamadou Yedda gi am na ko si dugg mooy loxo nan la ko def euh, bunt bu nekk fukki wëy ak ñaar la ko ni ko sëñ bi def waaye la ko jotee nag moom mooy waaw bu njëkk gi ak waaw bu mën na mën na waaw bu njëkk gi ak bu mujj gi waaye ci diggante bi la mun maam dana fexe daal ba bunt bu fekkee ne aróom la tàmbalee dana mujj gay dana fexe ba yem ak bu dee ak la tàmbali lu mel ne wa wasiq dana fexe ba mujj bayidu mujj ba mu dem mu yem waaw waaye ci diggante ba mënul sëñ bi nag daa jël gi ci boppam daa ne wasiq bi rabbil aas sil juudi wala wali mawdu zafi wasiq kullu min min la def mu mu di jël ëllëg aru mu man fële daa rekkee li yaa saag mën yi da ko def ba mu mat ki ñaar fukki waaw ak ñaar fukki nun ak ñaar fukki yaa ak ñaar fukki kaaf ak ñaar fukki xaaf ak ñaar fukki sayin sayin ak ñaar noonu la ko def ba mu jeex tàkk fukki nim ak ñaar lim bu nekk aw bëyee day noonu la ko def bàyyi lu Moussa bàyyi nekkul faala boobu moo doon wax noonu sëñ sëñ yaakaar naa sëñ Moussa Ka way woowu ci la rombe ñuy tëgg ci la rombe woon nga doon tëgg bam bam bam bam roy leen ca way wa sëñ la wax naan saahilatun mu fa saahilatun mu faxalaatun man da xam ma lay bëgg a way romb naa falaam ba ca bis déglu ñuy tëbal ak a way maahilun mutahalaa ni nga ni nga ni nga bindee dégg ma lool lool moom la doon jël di ko di ko di ko di ko way dégg nga daan ne seen mbër yu ndaw seen yéen seen mbër yu ndaw yee ña nga naa mbër mu ndaw alaw li ko way ma daal di way sama mbër seen wax jalaa bëgg a roy ahmadul yadaali kat noonu ko wax ahmadul yadaali kon lay roy ahmadul yadaali kat pas pasam ba laa amee tey parce que bu amoon ba doon fekkookee muy way ci mu way ba ci euh, noonu mu amee ci wasatu am ci muxadimaat am noonu mu amee ci muxadimaat am ci mawaahib noonu la amee ci xaside yëpp yëpp am na xaside gu sëñ Tuubaa bind bu ñuy wax التائبون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اللايمون بالمعروف xasida googu lu yéeme ngi ci dund ci aw bayit boo xam ne ne xam nga lu néew la sëddi ne xasida sangam ku ko jàng di ko bi sangam ku koy jàngee di ko yëkkati nangam ak nangam wax na ko ci mooy lépp bal maa ñëw ci dana le li maami sëñ Basiru mi ku wax mën naa ko mën naa ko jël sëñ si Murtala Juma si Murtala na ma ki nga xam ne moo jur way juróom sëñ sëñ sëñ Ibrahima ci boppam inam na xabdillahi baaxa kulla man abdahu aw yubdihu xaaliqu saman xasida gu ne am na lu man wax nañ ne sëñam sudu jaxate moo wax ne Serigne Touba moo ko wax ne ko ku nekk ci tawat bañ yaakaar ne du jóg bu ay fan mutut suñ ko ko bindalee suñ ko su koy naan di jóg su koy naan di jóg Serigne Mouhamadou Cheikh Mouhamadou bii tawatoon na te moom xam nga ni ni mel ci sëñ moom moo daan tuddee yaa bokk na bokk na ci ñu njëkk a tuddee turi xaside ay doom ñuy jumaa ji xattaka kablaak noonu la daan tuddee ay doomam moom waaw gootee tawatoon na tawa di métti sëñ moomu far yónni ci sëñ sut nee na ko bindal xasida googi inam na abdullahi sëñ sut nee ku bañ ba jàmb ko jox ko ba bañ ko yëbbee daa jub gi miñ gi da koo jub mu jub taxaw saafara sax da koo jub rek mu jub taxaw ne ñëpp jub taxaw te loolu yàgg naa am ci sëñ jaalibatul maraaxib bii naa la nettali loo xam ne sëñ xëy na ma ko wax sëñ sutoo ko wax sëriñ ko sëñ bi da koo fekke la wax sax sëñ Tuubaa def ko mu fekk xam nga sëñ bi jamono yi bi taalit mu xam ne eh, jaalibatu booba am na examen bu mu doon def waaye ba examen ba jàllee da koo jël def ko jumtuwaay jumtuwaay bi mooy man àgg na ci yàlla foo xam ne nee na mënatumaa jaxasoo mindeef su ma nit ñi jegee li ma yàllay xeeñ su ma nit ñi xeeñee mbir lañ may xeeñ ndax taxaw gi ma tax ak yàlla damaa saf yàlla sàpp sàpp sàpp yàlla saf ma sàpp sàpp sàpp la ko naar boo waxoon ne ko xanaa déggu sa mi sa teel bi li ngay wax te dégg da nga dégg ko li nga ma jaaxale mooy fi nga àgg ci yàlla ak fi nga toll ci yàlla ñu naa la yàlla nga nga ne ci yàlla sëñ Mbaye Sarr la bëgg a wax ak ni ko nun mu ne ko da nga dégg li ñuy wax tamit di ñaari laaj yooyu ñaari la ñaari laaj la la bëgg a laaj mu ne ko waxal ñaar yëpp ndax su ma la tontu benn bi doo daal di jees sëñ bi ne ko boole ñaar ñaar laaj yëpp laaj mu tontoo loolu yëpp ndax boo xasee laaj benn bi su ma la tontoo doo doo waxaat te te naaj daa mënoon a jéngat lool moo sëñ bi daan wax naan ñett yi yu yu naqaree mucc la te mucc naaj muy taxan tubaab bi ak jéngatug naar bi ak jayub kayoor nga ñett ngi yu naqaree mucc te mën mucc naaj kene doon waxee ne soo liggéeyam ak xiyaamat ak bar kenn amul maqaamam jàkkaarloo sama borom wax ko nii may baaga wax te man ñeme naa moom sëñ dana man képp ma am maqaama saabu maqaam maqaamam jàkkaarloo saa borom nekk loo mës a digle def naa ko te musuma laa loo tere daana ges mbooloo mais mënu musu ne man Ahmad wi musuma def lu ma astafurlaa di fekk ma laaj ko suñu tey suñu tey ne ma accam suñu am satu loolu suñ tubaab weesu ko bu jàgg ba joxe daana man mii di wax ak yow ma ne ko ah mu ne ma ndax ma ne ma ndax yow mën ngaa fóon jigéen nga sam jàpp du toj suñu tey jaaxle ma wax ma ne ko loolu mënu ma ko mu ne ma accam daa mel man mii di wax ak yow de mën naa mën a ko musuma def lu astaghfirullah di toog lu ma sa astaghfirullah di fekk maa gën a xaje ci télé bi suñu tubaab loolu ma suñu tubaab kon musuma jëf lu astaghfir lu ma astaghfirullah war a fekk ndax dama suñu tubaab soog bu yàgg si surtout yaay gone mu ne man maa man képp maa am ma xaaram jàkkal saa borom ne ko loolu ma sa digle def naa ko te musuma laal loo tere suñu tubaab képp ne ma am ma xaaram am ko am ko xam ne yente yente yi daa nekk ci xelam mu koy xalaat sëñ bi daal di ges ne ko fala nasalanna la sina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalina

ku yaakaar sëñ Tuubaa mbaa nga xamul turam da ngay tax ma ne ko ah mu ne ma asiq asidi xool wa suhadaaw mu ne ah ma ne ko seen xar kanam ya dafa weex tal te asaabul kahfi seen xaj baa nga àjjana ma ne ko waaw mu ne ma xaj yi xaj yi dëkk Tuubaa sax dañu dem àjjana ay waay xaj yi dëkk Tuubaa sax dañu dem àjjana kon mu xadimaat tam jeex euh, jaarabatu maraaxi boobu li ma la ci bëggoon nekk li sëñ bi li nga xamee ne mënut a taqoog nit te mënut a ñàkk tërbiya jëli ko lu jël rek teg ku dikk ne ko damaa bëgg a tërbiya bi def nangam nangam tarxiya tasfiya nangam nangam mu di jox la lim bëggoon a def ci yow xasida mooy jeex sa yaram di lu ñu tudd lu mu gis lu ca bokkul mu génn sànni lu mu gis sa yàlla ba lu ca mu jël dugal di supprimer di di envoyé loolu la jaalibatu xamaraaxet di def jaalibatu xamaraaxet mooy awakaab xasida yëpp mooy awakaat xasida yëpp mooy awakaat xasida yëpp laa wax ndax ay xeeti bëy tamit ci yoo xam ne soo naree laal nuur am loo ci bëgg a wax mu ne la déet wàccal bi nas mi foo xasaw soo bëggee laal beneen bi ma bisi mu ne wàccal kalaami bi xayra kalaam وبالكلامية وبالإسراف sëñ Tuubaa puufum rek puuf puuf rek day gindi nit teg ko ci siraatal mustaqiim wa bil isaara rek mu gindi la tamit siraatal mustaqiim di muriidan la wax yëpp dafa inaam bay bi ma ci gën a neex nag mooy nee na mooy kii bay bi gën a neex ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci jël ko maraam sëñ xëy nee na mooy yaa may yaquudu lii ma axtal nee na bay boobu daa dëj adduna kapp fees dell xamatul fii nekk mballi wuti asamaan لولو ما ياما يقود لي ما عتر يوم عند اللي ما بقولني لب أغلب أول ما بقي تخمك نعم بمو منا ويا كان لولا تيتك منا لولا تيتك منا كسل على ما ليش مهر مختار يا أنت بنيات كم تفهمك نحجوك نقول لب نحن نقول لما لا ننتهي دنكو دون سوق لا دون ترى ما لاقيس نبرم ما يرسل نبيل نغرم ما يرسل نبيل ما سهل لك تنيا داي ما خو مو تخ بما اجي فتا تا تا تا تا وات واي با غاي يا خمني دنج بو دكو ني دوك تم ديك لين بن ديك دنج كو يو فو جار باسكو فا لا اي تيغلا ولي قد خطا الحاجات بلا دو بس من ويا wala ñu ne ko waaye fi fekk am na vitrine bu dox seen digg bi ñu ne ko waaye vitrine bii nga nekk nii fii fii liñ doon wut a ngi nii yow lu tax nga agsi bëgg dugg te ñun ba ñu agsi dañoo téye muy leen yéen da ngeen a soxla kii ñu ne ko waaw ñu ne man kii yéen a soxla ñu ne ko ah yow li nga wax dana waar mu ne ah raama rasulillahi min ilahi kaw nii xatimu wa abdullahi sama yoon nekku ci ñu ne ko amu ne xalal la si talaba xam nga loolu la xalal la si talaba salaata rasulallahi lii foo xamat na bi moo tax ba mu ñaan te ñun biir wakaana xam ne ñaari bayit am na doon naa ko wax euh, woon sëñ bas bu yàgg bu mu nam mu le najji xiyaalal Mustafa najji xiyaalal Mustafa ak najaayta xoo ñaar yooyu différence bi topp yonent bi ak ki topp sëñ ñëpp topp yonent bi ñëpp topp sëñ waaye ci waxi najji ak najaayta nag ci lu ñu yàlla te amaguñ ko na jooy tey luñ confirmé la ba teg ko ne naj ci xiyaalal Mustafa ngir yàlla naj ci ma teg ci ngir nga nang ko ba hada salaatin ma suñu salaam ma salaam ko fi ne mun rek najjayta man biya taxallaqu maha saytaane mii tey àgg tër ci ñuy ànd man ngir ñu mën a àgg ci man mina sayaatiin kon fa sukkuri yasma maa ngi sant di ñaan ngeen sant ma yéen ñi nga xam ne najayta ci najayta ngeen bokk mooy ka toogoon ba nga sant sëñ bi ba yàgg mu xool lu mu war a sant sëñ bi xam mu yëkkati ne cas mbubb mi mu yoroon ko sëñ bi jox mu ne cas si jaara gi mu toogoon muy la ko sëñ bi jox jox mu ne ñoddi lal bi muy la ko sëñ bi jox satala gi sëñ bi jox ko mu ñett lu mu ñetti der bi toogoon li mu yoroon lépp xamul lu mu waaxu wuti sëñ ba ma àggee fekk tër ci kanam sëñ bi di jooy jooy yi métti sëñ bi nag ana la war a jooy yi mu ne ko damaa toog fa ma toog mag ñi daal mun naan wax ak sëñ bi rek damaa toog fa ma ak sant gu ma war a dolli ci yow xam bu ne bu ne koon damaa toog fa ma toog dina sant sëñ bi mën ngi may doog ko damaa toog fa ma toog yëkkati ak sant gu ma war a dolli ci yow bi ma yëkkati ba nar la ko indil muy loo lu ma yëkkati ba nar la ko indil muy loo ma joxoon daal di jàpp ci mbum mi ne ko taal xot ne ko mbàkki ba ci mbum mi suñu woon suñu mereka yooyu ma def daat neen noonu la ko wax bi di muuñ daal di ñaan tëdd ci bopp bi sëñ bi ne ko nga ne da nga maa bëgg a sant xamoo loo may sant mu ne ko waaw sëñ bi ne ko loolu di yàgg ñëpp daanaka ci turu mbooloo ko ko waxee xam nga loolu ci turu mbooloo ko ko def dee leen ci def li ngeen ci man xamu leen ni ci wax man li ayoo ci li yaayoo ci man ci can saa rek ko xam li ci man ci can saa rek ko xam kon baka naman bigay doon nga